قهر وغلب ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما سلب رخز الإيمان في قلوب أحبابه وكتب فأذاقهم لذيذ حبه ولن يجدوا لقمة ما استطاعوا وكشف لهم نور محرفتي فتلذذوا في طاعتي بلا نسب أحمده سبحانه وتعالى عند من تاب من ذنوبه وعلب وأذكره شكرا يفوق عبد من حد وحساب من حسب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على قادم الحضرة القدسية هين الرحمة ربانية أمن الإساءة الإلهية حسن المملكة الصمدانية بذات القلة تاج المهبولية الفاتم القاتم مولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار عظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه التحية والإحترام أقدم إليكم زيارتي ومحبتي فيكم وأقول لكم سررت لكم غاية الفرح gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo la ñuy dara yi ñëpp di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw woote ñu fekk si la yombul waaye tamit di kontaan ci bés bi nga xamante ni seen nekk muy bési Seydul Ayam di sang bési di ñaan yàlla ngeneelam maqaamam yàlla nay baawaan di saawaan ci kaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëm ko nga xamante ni soob na yàlla suub na yàlla lu mel ni moom muy amaat bu doon garab la tas na bu doon garab la seey na bu doon penc la tas na lu mel loolu du amaat yàlla binaatul lu mel ni moom ñi doon benn jaam toog ci benn bàkk di kañ yàlla di ko bàkk ndax moom rek moo ko jagoo ndax moom mooy borom amul morom ku am moroom matul borom waaye ku mat borom amul moroom di yàlla subhanahu wa taala modoo nag ñoo ngi ko tënkoon si fadiratul islah bayna naasi ay xolmaal xadis yu bëri wax si ak ay borom xam-xam yu bëri bëri bëri wax mënuñ kaa jeexal bu ñu la wax fii bi suba mënuñ kaa jeexal tamit dañuy wax dañuy wax lu suñu xam-xam yem rek am loo xam ne binduñ ko waaye am loo xam ne binduñ ko waaye mënuñ wax lépp waaye loo mënta a jeexal moom loo su mos doy na Maodo wi bokk na ci jëf yi nga xamante ni yéen salaa salaam soññ nañu ko fa min al ahmaali xazimatu allati xassa alayha al islam wa raqaba alayha al suhu bayna annaas fa al islam dinu mahabbati wal ijtimaau wa taalifu bayna al muslimin mu ne bokk na ci jëf yi gën a màgg jëf yoo xamante ni moo leen gën a xemem mu gën a màgg te yun sallallahu alayhi wasallam soññu ko te diina nga xemem ko mu ne mooy as-sulhu bayna naas mooy lan mooy nga defal diggante nit ay nit ni nga xamante ni seen diggante neexut nga fexe ba liggante leen ba def teg leen ci yoon ndax la ma tax nga xëy def di fa diinu di euh, fal islaamu diinul mahabbati ndax diine gi diina mbëggeel la islam mënoo nekk doo mënoo nekk julli ba pare nga ne islam nga ne doo bëgg nit ñi loolu mënta nekk ndax laa yu'min ahadukum hattaa yu'mina li ak li ahabi maa yusba li akhi ndax li nga bëggal sa bopp moo ngay bëggal nit ñi lislaam kon li dafa yaatu yaatu koo xamante ni mënoo ñëw rek nga ne julli nga pare te doo bëgg nit ñi loolu mënut a nekk c'est impossible loo mënut a nekk euh, dangay gis nit ñi dañuy xuloo wante di ngañewante seen biir di def yoo xamante ni day rafetal seen diggante di ñagasal seen diggante ba nga xamante nii yow da ngay gis nit nit ku mu bokk ak nit kër koo xam ne dafa bokk moom kër a pare liggéey ko pare dem toog si kër gi fekk mu fekk mu mu feebar mu xëy naan mu xëy naan kay tena wala tenoo loolu doomu aadama moo ko say def loolu nga jëlee si nga jëlee si ni kon doomu aadama rek dafa doomu aadama dafa dafa ñu koy waxee sax dafa kii euh, dafa saay saay saay saay goo xamante nii moom moom rek moo jox moom moo man a def loolu waaye tamit diine gi diine Euh, ictimaa daje dañoo wante la boo amee soxla da ngay ñëw si man boo amee soxla mënu kaa faj nga ne xaama dem si sëñ euh, Lamine Diop nga dem si moom bu fekkee moom xaalis la problème xaalis la mu lebal la ko nga fay mu lebal la nga def loo def waaye ba pare danga ko fay nag nga nga delloo ko si njëkk ak taraanga bu fekkee moom mënu laa lebal bu fekkee mënu laa may mën na laa lebal naa la lebal bu fekkee mënu laa lebal tamit na la conseil dara bu la conseil après boo demee nga nga jëfandikoo loon amaana lu nga kii da nga da lu nga bëgg dana sotti si loolu waaye yow nga ne jullit nga ah da da nga nga gëm nga yàlla gëm nga yonent bi sallallahu te nga yow mënoo bëgg nit ñi te doo booloo nit ñi doo wéccuwante nit ñi déedéet loolu mënut a nekk da ngaa war a miinante nit ñi tamit doon ay xarit ak nit ñi nañu sallallahu alayhi wasallam nee na al mu'minu ilfun ma'lufun wala xayra fi man laa yulaf wala yulaf mun koo xamante ni du xaritoo duñ xaritoo moom mun ko yiw nekkul si moom mun yiw nekkul si ka xamante nii koo du xaratoo nit ñi nit ñi duñ xaratoo moom moom daal moom kenn kese moo toog mun ay yiw nekkul si kooku kon loolu ndox ni sarte yoon saa sa moo wax loon kon kon loolu boo nga déggee si ni kon nga nga déggee si ni kon loon ponk la si si diine gi kon ndax fal islam muslim baat muslim ñu ngi ko jëlee si baat islam bi firi wala salaam kon ba comme lu mel ni comme baat masjid masjid mooy firi jàkk wala jumaa ñoo ngi ko ñoo ngi ko jëlee si baatu sujjuut sujjuut sujjuut wax tarif ñu koy xaw ma ni ñu waaye mu ne lu mu bëgg wax foofu tamit ba te lu ma bëgg lu ma bëgg wax foofu mooy comme julli bu xasee doon julli daal lépp lépp lépp loo xam ne sarta yàlla teg na ko sart ay sart sart na nga nangu lépp lu mu tere nga bàyyi ko nii euh, ndax yàlla mu ngi woon si alxuraan laa xayra fii kasirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw maarufin aw islaamin bayna naas mu ne yiw nekkul si nga xamante ñi nga xamante ni ñoom duñu seen biir lay def duñu wéccuwante nit ñi lu nag lu du nga xamante nii dafay digal nit ñi sarax wala muy jégalu wala muy defar diggante ni ñi bu su su may ñett nii mu ne kenn ku mën doon yiw nekkul ci yow kon loolu alxuraan moo ko dëggal te beneen xadis am na beneen borom xam bu wax ne xaala euh, imaamu tabari mu ne rahimahullahu taala wala islaahu bayna naas mu ne xaal huwa islaahu bayna mutabayina aw mutaqasimina bi ma aba allah euh, islah baynahuma lee taraajaxa إلا بما فيه ألفة واتما كلمة حلا ما أذن الله وأمر به مني أه كيدي إمام الطبري مني الصلح بينك وخير دي دفر دي كنتني ولا دي دفر ولا دي يوينال مني موي نفيك نيار نيو خمتني نيخوين ميرونين كم لغا غاية دفع رك فيك نيار كرغو خم كرغو مغلا رك نيار نيو خمتني نيو بوك باجان ولا نيو بوك ياي نيو ميرو كينا بنو مأمفول نيو te su ma jégul du ko jégul gënu ma am fulla waaye loolu noonu ñaari nit ñu meroo ku njëkk jox sa morom loxo tiyaaba bi la yàlla bi ne kenn xamul nu toll te loolu gars yi dañ kaa ñàkkal fayda dañ kaa ñàkkal fayda da nga jàpp ne yow moom nit bu la ko meree rek ñu ne kii tappel la loolu ñoo kii tappel la fekk yow yow xooloo sax loolu waaye nit ñi loon duñ ko bàyyi xel Sénégal fii dañuy dañuy xool loo xamante wala réew mi fii dañuy xool loo xamante ni moo gën a am solo ñu ñàkkal ko solo ñu xool loo xam amul solo ñu jiital moom it tey xorom rek xorom xorom xorom xorom xorom nu amee soxla si si si si kii si ndugg waaye xorom bi ñuy joxe nga xaalis dépense sax xorom di ko nga joxe xaalis dépense jigéen ñooy jël ñaan ko wala ñu dégg ñu dem liggéeyantu xool xorom nu amee soxla si si nu amee solo si lekk bi xorom amul lekk bi amul xorom doo ma mën a lekk dafay lewet xool nu fa amee soxla foog nu fa amee solo waaye nit ñi bi ñuy bi ñu dugg ci marché ñu dégg xorom bi ko joxe dañuy pare dem dem jo jigéen ñi ñooy pare dem dugg si waañ bi wala dem ñaanaatu xolam te xool loolu mu amee sol kon loolu yépp pour ma tënkal la ko mooy ngir nga ñaa nga xam ne dinaa yokkoo nga nga mën nga mën leen jël yóbbu leen yóbbu leen si diin islam nga delloo leen nga delloo leen ñu doon ñu doon ay jullit te te minent loolu ndax diine gi mu ne وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسلف بين الناس يكتب له أجرا عظيما xibaar na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne defar diggante nit ak nit ñaan yàqoo nga fexe ba defar seen diggante noo ko mën a defaree rek mu ne kooku yuktabu lahu ajran aziman koo bi nañ ko benn yiwu màgg yiwu kenn xamul nu toll yiwu kenn kenn xamul nu toll kon nga xamee ni kon defar diggante nit amuñu si waxtaan leneen leneen leneen mu ngi si biir incha allah dinañ si ñëw روى إمام أحمد في مسند من حديث أبي دردل رضي الله, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة ثلاثة وصيام وصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد الذات البين هي الحالقة وفي رواية لا أقول تحلق الشعب ولكن تعلق الدين والإصلاح تحقيقا أهوة الإسلامية sol nañ si benn hadis si imaam euh, Ahmed Masnad mu jëlee ko si Abu Dadar nee na mu jëlee si yoon sallallahu alayhi wasallam mu ne ndax du leen xibaar loo xamante ni daraja goo xam moo gën julli gën woor gën sarax wala nax du leen may loo xamante ni wala ma laay biir leen loo xamante ni wala ma xabaar leen loo xamante ni moo gën julli gën woor gën sarax gars yi ne ah lu gën julli gën woor gën saraxa te julli yàlla moo waxoon yoon sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ñu ne ko ay ahmaalu ahabu ilallahi taala bañ yàlla gën a bëgg si jëf mun ko xaala xaala asalaat fi waxtiha julli si waxtu ba après mu ñëw mu ne euh, kon am na benn daraja gën a bu gën a màgg daraja julli mu ñëwaat tamit mu ne ko euh, wa sawmu ak koor koor nu mu fooree ak nu mu màggee yàlla nee na koor kenn du ko fayal kenn du ko fayal benn kenn du ma ko fayal boobu koor nag ndax màggaay koor koor foor foor gum foor te yàlla buy fay dafay doublé fu war a def téeméer day def junne ak sarax nga xamante ni sarax xom lu mu lu mu waaye mën na yokk fan gaay ñu nak ah ñu ñu lay di ñu ko xawlu balaa xool ala ubirukum ndax duma len xibaar mo xamanteni mo gën dara goo xamante ni moo gën julli gën wor gën saraxe gaay ñu ko xawlu bala mu ko waaw lu ngi amé jël kay na julli kay tiyaw yi ci man amé ak ak koor ak saraxe lu ngi amé lu ko lu ko gëna xor kay ñu jël kay gaay yi duma to duga dul ñu ne ko moy lan mu len al islahu zati bayni fa inna fasada zati bayni ak fi xaaliqat mu la moy dafa diggante ñaari ñu ngi yàqoo ñu ne ko dégguñu wax ji mën leen dafa diggante ñaa ñoo xamante ni di am meroo wala seen diggante neexul daa ñagas dafa tax nga fexe ba dafa diggante bopp loolu moo gën julli moo gën woor moo gën saax kon merowante ak xiyaasante loolu moom baaxul amul benn njëriñ bu ñu ko mënee baax nañ ko ba tege ko na la na amul benn njëriñ dafay dagg diine na yàlla ni alquran innamal mu'minuuna ixwatun fa aslu bayna axwaykum wa taqullaa laalakum turhamuuna mu ne ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla dëgg-dëgg te ragal yàlla te yàlla mu ñoom ay mbokk waaye mu ne da ngay yiw leen seen diggante da ngeen ragal yàlla amaana yàlla yërëm leen kon loolu alxuraan ñu ko digal kon aay bi yàlla alxuraan moo ko soññu kon ba tey tamit ñoo si fadilatu islam benn naas ba tey tamit bëri na ay ngëneel bëri na ay ngëneel bëri bëri am na kenn ku wax ne mu ne al islam benn naas yi sunnatul jalil xasana alayha nabi sallallahu alayhi wa sallam wa xabaaratul xazimati yuxibuha allah wa taala mu ne fal muslix huwa zaati allazi yubsilu jahduhu wa maaluhu وجهه ذلك ليصلح بين المتقاسمين ولا يخفى الخلاف الامر الطبيعي بين بين البشر لا يسلم منه احد فقيار البشر حصل بينهم خلاف كيف بغيرهم أه، ام كان كو من لون سنه لا من دابا ديغنت دابا ديغنت نيك اك نيك دي يونال اي ديغنت نيك من لون سنه لا سنه مو خامل سنه ماغلا كين منو كا ديني te mën a bokk nañ sa yonent sallallahu alayhi wasallam nañu ko comme ni ma ko waxee si tàmbaliment bi waaye ti ne jaamu yàlla boo xamante ni jaamu yàlla bu màgg la loolu moom loolu lu yàlla bëgg la nax fal musli huwa zalika allazi yubsilu jahdu wa ma ni ki ni ki muy ni ki nga xamante ni day defar diggante ñaari nit nit ñu yàqoo mun kooku amaana sax am na fi muy toll sax xaalisam mën na saa ñàkk mën na saa dem wala góorgóoram wala mu farusu ngir lan ngir defar ñaari diggante ñaari nii rek fekk nit ñaari ñoo ngi yàqoo ma xam ne coono su ma ko waxee tamit du ma faale moom borom jom la ma wax ko ma ne hé moom ëpp ma ful la nangam nangam nangam man ma wax cee cee tamit ne ma ful la man ti ma fexee ba jël ñoom la ko man ne ko ah sa waa ji de wallaahi sa waa ji ma ko sa waa sa waa ji de wallaahi li mu ngi wax sama yow lu baax mu ngi wax si yow lu baax kanaa kay nit ñaa bañ seetaan rek nangam nangam nangam bu mu paree ko si su mu paree si kooku demaat si keneen ma ah wax dëgg yàlla moom mambaay bi tey de moom moo ngi wax ne mu wax si yow de na moom rafet na trop xanaa kay setan mo dox seen dugal bu ko defé yow def nga ci effort kee def ci effort kee yow da ngay fexé le ñu ñor buñu ñu dajewante rek nga fexé le ñu jubaleel ñu ñu juboo kon lool mo mo nañu defé digënté nit ak nit ba na ay façon waaye dinaa si inu yu bari lool ngir ngir nga defar ci digënté ay ñaari nit mu ne nak na bus bi ngi khilafa amna mom ikhtilaf amna mom am mi nga ni hadith nga ni ay bi man ni la ko déggé jim kay ne man nii laa ko déggee kii ne nii laa ko déggee loolu nawul xeesant loolu nawul xulowante waaye xulo bu tax ñuy wax mooy ngay xulo boo xamante ni ngay jaar foofu bàyyi kaaram bàyyi wante waaye ixtilaaf moom am na euh, comme lu mel ne masalan moo mel ne man la aay bi ni la ko ñi lañ ko war a firee ndax lii nangam nangam la kii ne nii la kii ne loolu moom ku ne ak si dégg-dégg fu mu yem la rek ku ne ak si dégg-dégg fu mu yem yén salaa mu ngi si benn xadis mu ne dafa diggante nit ngir ngir ñu am jàmm jàmm moom loolu mu ne bépp bépp nit yàlla bind na temeri si téeméeri téeméeri ak juróom-ñett ak fukk ak kii juróom-benn juróom-benn fukk mu ne mu ne na fekkee da nga sarax da nga sarax sarax boo xam da nga kaa wala nga euh, nga sabal yàlla wala nga wala nga kabaar nga allah akbar wala nga laa ilaha illallah wala nga dimbali ko xamante ni go góor koo xamante ku ñàkk la wala nga yëgit ko xam këram mu ne lii yëpp pour nga def ko ngir euh, dafa diggante nit mo lon sax la wax xamanteni ni mukk sax la boo xam ne dakk mukk kon ba baat di sulhu di firi defar baat boobu euh, baatu arab la ndax boo waxee as-sulhu mooy firi defar islaax foofu baat boo waxee as-sulhu wala saalix kon man insaanu saalix kii ku baax la waaye loolu li ñu ci mën a xamee rek mooy baatu day tux comme moo mel ne moo mel ne bis sabtu nga ne yomul sabti sabtu mooy bisu samedi sibti mooy dàll karbeet surtout mooy naaf gerte wala naafu dugub wala kii baat arab dafay tuxu lii yëpp ngir xamal am na ñoo xamal ni day dañuy ñëw rek gis baat rek bu ñu ko gisee nii rek mu firee ko noonu te fekk am baat am na fu muy am dafay dafay tuxu ndax baat arab dafa danger mën nañ kaa ma suuf bu ñu ko mas suuf rek wala mas ko si kaw rek kii maanaam dafay dafay dafay toxul mun hmm. amal islam fa ma tadalu fa qad yakun rajulu salihan fi nafsihi faqat waqat yakunu salihan fi nafsihi wa muslihan li ghayri na am am na koo xamante ni moom dana baax nii rek dana baax nii rek moom dana baax waaye du mën a baaxal kenn waaye ko am na koo xamante ni moom dana baax après baaxam boobu pour mën a defar nit ñi la dana baax waaye baaxam boobu pour mën a defar nit ñi la comme lu mel ne Seydou Youssouf moom yàlla moo ko def moom bu baax la pare te dafay former nit ñi macha allah na nag yàlla fay yokk xam-xamam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon باتاي تيميت جيل نين سي ابن القيم رحمه الله تعالى فصال ف فالصلح جائز بين المسلمين هو الذي تعالى ورزق القسيمين فهذا أعضل الصفر وأحق ويعتقد حلم والعدل لسان مني كي مو دفعوني مني دفع دي mulu mom moom lu dagan la lu dagan dañ ka war def moom danga xam mënul loolu lu dagan la dafa diggante nit ñaari nit lu dagan la moom loolu da nga def mu bo boo demee bay dafa diggante ñaari nit yàqoo def ko ngir ngir maani yàlla ngir nga amee si ngir maani yàlla bu si def ne bu ko def ne pour mooy puukare nangam waaye def ko pour nga amee ngir maani yàlla waaye tamit mu ne nga def ko tamit ngir nga amee ngir maane ñaar ñi nga xamante ñoo xuloo seen seen ngir maane mu ne loolu boo ko defee ya? ah loolu moo gën a maandu moo doon loo xam moo gën a maandu waaye moo iya yeyoo ta bo demee ya, bay àtte timit xamal lula war xamal lula war bul na ki sama xarit la rek dama ko wara farle dama ko war farle bu amu amul deug nono ko ah diw kat sama xarit sama xarit nga deug nak waye deug mo deug yàlla amako nangam nangam nga jox ke deug mu dem ni àtte lay ñew bu fekke mo am deug timit nga tekkee ci yoon jël ko and ak mom dem dem dem ki, lon dafa digante nit ak nit lon do doon jaamu yalla bo xam loolu mënuñu ka gene si jaamu yalla waye tamit mu diine gi yombal na la yombal na la ko nga xamante ni mooy defar ka nga xamante ni mooy defar diggante ay nit ak nit mu ne kooku yombal na leen bu dee fen sax na fen ngir defar diggante bu ñaaw di dañal lu ñaaw wala mu delloo leen ci mahabati umu kulsum radiallahu anha dafa wax si benn xadis mu ne mu ne koo xamante ni dafa dafay defar diggante nit nit ak nit di si fen wala mu si wax leneen lu dul nga jëlee si ak yéene wala ak wax ju baax rek mu ne kooku du nga tuddee fen laysal kazzab kooku noo fenkat kooku du nga tuddee fenkat noo fenkat Euh, muslim doole si ne mënu moom comme masalan ñaari ñoo xamante ni ay jëkkër jabar yoo xamante ni ñu jékki-jékki rek jabar gi wala jëkkër gi jékki-jékki rek jabar gi sopp soppi soppi kii jëkkër gi sop melokaan jabar gi ñoo fenk ay fenam sangu ba set ñëw dabar karam gi ba mu baax ñëw kii ko ah man day kat nangam nangam nangam pour pour bëgg jëkkër gi rek wala récupéré waat pour ñëwaat loon fen go loon no fen fen go xamante ni fen haram xaram la ni ñu koy amee dafa bëgg diggante bi gëna yagg wala masal wala timi jëkkër gi timit gis jabar gi ko na muy mon hé sama jabar gi mom hé mom dafa tang trop mom da ngay ki rek mu ne la ki nangam nangam ah bu ko defee légui loolu ma l'islam mayna la nga nga nga nga fen ko ben fenn bo xamanteni dana man a dana man a kon fenn bob nu fenn go xamanteni fenn du fenn dafa haram fenn bu dagal l'islam mo la ko may mu ne li yëpp ngir ngir bëgg sa amé bëgg sa dolé ko ay kàddu ak ngir sàkku jàmm loolu jàmm rek mo am jamm jamm rek mo am solo nit ñi nit tànk yaa ngi am jàmm rek yaa ngi am jàmm waaye bu amul jàmm rek nekku nekku nekkoo si dara Maodo moom xam naa bëri na waaye dañ tënk rek si benn digg ndax heure bi dafa dem lu bëri te bi noonu neen lu bari bari waaye loo xamante ni mënuñ kaa wax mu ne fayal mbëggeel si sa bopp mu ne mooy ngir nga defal nga defal ay ay diggante ay alaaq ay ay alaaq yoo xamante ni mooy defal ay relation rek ñi nga xamante ni seen dig bahana apa pare ngay bëgg di gën di di rafetal bu am xiasaan mu am ay xulu mu am dara dara dara da am dara lu ko lu ko ñagas lu ko rafetal mu am dara pour bëgg relation bi gëna kon di rek di dem ci karam rek lon boo ko ma ni ka nañu ci modon bi waye timit euh may indi ñaar wala ñett rek si njëriñ nga xamanteni ni amna am ko di asulhu di njëriñ yi nga xamanteni ni am ko nga defal ay diggante nit ay nit nit ak nit moom loolu dafay jëmbat ay ngëneel ci seen seen ci seen bopp ak ak maxfira ak njëggal waaye tamit waaye daf lay yokkal ay yiw yiw yi nga xamante ni day yëkkati say daraja yëkkati say daraja ba ba faw comme yëkkati dara yëkkati daraja moom ñëpp bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ seen daraja daraja yi màgg ci kaw kaw ñu am lu baax lu bon kenn bëggul ko man moo dañ koy tënk foofu rek da leen nuyuwaat di leen gérewaat di moom alhamdulilah macha allah da leen dénk ak eh, ragal yàlla jaamu yàlla ak bañ a mooy yàlla moo gën a jaamu yàlla moo gën jafe yal nañu ko yàlla yombalal waaye mooy yàlla moo gën a yomb yal ko yàlla jafel yàlla may ay yal yàlla may xam-xam bu barke xam-xam bu eh, yiw boo xamante ni amul benn eh, amul benn ñeges ñeges ñeges bu leer nañi xam foo toog foo mën a toog di mën a mën a wax gars yi dékku la ñu waat asalaamaaleykum bi day gën a yokk rek su nekkante ni yow eh, ki nga xamante ne su amee dalay xañ yow soo amee yow da nga koy xañ eh, boobaa yéwénal du am yéwénal fu amee mooy man su ma amee du ma la jox amee jox ma ndax bu yàggee man man mën na maa sensé loolu eh, ahsin ilan naasi tasahbil qulubuhum fa kaana ma sahabal insan insan maanaam rafetal jëmee ci nit ñi bu yàggee sa rafetal googu mooy tax seen xol yi nooy ci rafetal bi ngay rafetal kon islaax dëgg-dëgg mooy waa ñi moom lu mu mënta mel yow bu ko topp yow yow rafetalaa rek bu yàggee moom mën naa jubbantiku ci rafetal bi ngay rafetal jëmee ci moom moo tax kon euh, makaarim ala dëgg-dëgg su ko nit ñi pratique woon dana mën a am maanaam tamooy ngay jégal ku lay tooñ di jokk ku lay dagg te loolu nag mooy comme ni ko Seydou Mahadra waxee du yomb nag moom ndax tey jii bu nekkante ne ñu laa dagg yow nga jox ko dañ naan yow amoo fulla wala nangam ak nangam waaye effectivement noonu la war a demee ndax yow eh, olof yi dañuy wax ne mbaam su nekkee dara weex nga fa bu baax yéen a yem waaye nit ki pour nga gën ko mooy da ngay mën lu mënul maa nit ki nekkul ne lu ma def def ko lu ma def nga def ko comme noonu ko ba ma xaama di waxee man daal damay jëflante nit ñi comme ni ñu man rek loolu doxul waaye pour nga gën ko nga koy fexee mënal lu mu la mënalul te loolu mooy islam dëgg-dëgg islam mënutu ñàkk ndax ñun yàlla moo ñu wàccee fii ci asbaab yi foofu ñu islam waaw ndax wax naa kenn ku ne mënoo dem bàyyi sa morom waaw yàlla sax islam moo tax mu jël boole ruuhu ak yaram boolante leen ñoom ñaar ñu tax mu sa dégg na masla moo tax ñu nekk su nekkee ne mënu ñëw masla kon duñ nekk te buñ nekk du am sens kenn ku nekk bu defee firaax boobaa du am sens boobaa yàlla du am lu mu bëgg kon ñun bu ñu wàccee fii góor moom na ak jigéen lu góor ak jigéen loolu dina kon boo foofu ñu def islam bu islam amul rek du baax dama ta bàyyi wax ne ñëpp ñi mooy kenn kenn ki mooy ñëpp ñi loolu nag mooy teg na kon ñu ñëpp war a ànd waaw boo xoolee sa bopp gis ma sa sa bopp rek boobaa ñu mën a yaa ànd waaw bu nekk da ngaa gis sa bopp feneen nga gis ma feneen boobaa boobaa islam du mën a am kon islam dëgg-dëgg daal mooy kenn ku nekk koo gis jàpp ne yooyu moom mooy yow yow yaay moom su loo amee rek boobaa islam dana mën a am ñu ngi jégalu bu baax ci guddal bi dañoo amul xam-xam moo tax commencé yàlla dana asalaamaaleykum رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية